Alassane Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaay njiital ligue sénégalaise des droits humains kuréel la bi nga xamante ne dafa yëngu ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama. Eh, yéen waa LSDH kon eh, yéen a ngi woy ba tey ñu leen ci dégg ngeen di sàkku mbirub kon eh, kii di Fulbert Sambou soldat boobu daa di réer ba faaf ñu daal di koy gis mu ñàkk bakkanam ci anam yu doy waar leeraange lan moo waral ngeen koy sakku boobu ak léegi ndaxam gëm ngeen kon wala ñàkk dangeen ngeen ñàkk gëm teesub noyade maanaam lab bi ñuy wax. non dafa naa gis moom lañ denc suul démb ci ki ku wàññi ci cimetière Lazare donc pour man euh, ki ki des mooy Badji moom la moo disparaître pour l'instant Badji. Mhm. donc comme seen tur dafa xaw a sant sant ñoom ay mbokk la nu certainement ñoo bokk village sax d'ailleurs. Mhm. te li ma ci wax rek moom mooy euh, lu doy waar la que ay hommes de tenue hommes de troupe gendarme wala militaire disparaître Sénégal ñu wax affaire wu lap pour ñun euh, ñooñu ay nitu ndox la ñu donc mënuñu gëm lap comme ça surtout que ñëw ko gisee donc mënul nekk loo xam ne daal daan ko nangu mu yomb. dañ bëgg daal def enquête bu gën a leer pour famille bi defoon autopsie moo doon jiitu malheureusement amul autopsie donc daal li ñu naxarlu mooy daal foofu daal xaw nañ fa am sàggane ak waaye fal boo xam ne moo jiitu woon. Mhm. autopsie ñu bëri di koy sàkku bokk na ci sax euh, njaboot gi waaye gis nañ ni mujj nañ ko ni ki ci talaata gi te amul autopsie ndax da nga jàpp ni dafa am lu ñuy nëb nëbal. non mun ma xam lu ci mën a nekk en tout cas doy doy na waar daal que toll nañ soldat xam ne état bi moom moo ko yore en charge mooy employeur am état am ku ci gaañu ñu ne dafa daanu ci ndox mi wala dafa denc ci ndox mi te def na autopsie dans les règles de laar dafa doy waar daal ci day day dana yàq xel dina jaxase xel ndax loolu pour ñun dafa nekkoon lu élémentaire autopsie bi te pour ñun dina avancer science bi léegi médecine bi nu mu avancer léegi pour mën a def autopsie nekk lu jafe Mm. ndax li ci ëppoon importance moom mooy nekkoon ci poumon yi. Mm. donc loolu mooy loo xam ne amul malheureusement donc dana gën a yokk xel ñaar ci ni mu deewee donc loolu lépp day gën a jaxase xel yi malheureusement. Mm. léegi euh, dëgg la naam rob nañ ko waaye ndaxam ba tey yaakaar mën naa am euh, ci enquête bi donte moom suul nañ ko denc nañ ko. xanaa xanaa bokk la ñuy wax bokk xanaa ñu ngi rafet gi njort parce que procureur dafa génn wax ci donc dañuy xaar fu muy mujj fa nag wane wanent mujj ak ay bëtam mais daal am na nañu yaakaar daal ni daal euh, jot na ci ñoom procureur bi ak enquête bi ak ñu koy jàppale ci enquête bi ñu mën a teg euh, lu leer ci bopp nit ñi parce que Sénégal dafa jaaxle que ay homme de tenue gendarme wala soldat ñu mën ko toog mu disparaître muy mu ne meng mënuñ ko gis loolu pour ñu mënul nekk Sénégal en deux mille vingt deux mhm. ñan ñoo war a taxaw nag jamono ji euh, njaboot gi muy famille bi ndax am yéen tamit war ngeen ci mën a wane seen bopp ci côté famille bi ah ci la nekk na depuis bi mu amee ba léegi wax nañ ci démb ak tey donc loolu diggéen ñu wax nu waxtaan nañ ci leen sunu aqulaay taala sunu warugar def nañ ko mooy déclaré déclaré mu am lumière mu mu leer ci bopp nit ñi parce que pour ñu daal nit mënul dewee noonu mu nekk perte profit mhm. euh, keneen ki mooy naataangoom bi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp ni ñoom ñoo réerandoon ba léegi nag euh, xamaguñu fan la mujj amaguñu ay xibaar ci moom ndaxam moom tamit mën nañoo njort ni euh, faatu na ah oui mënu ko mënu ko mënu ko dàq ndax fi mu nekk nii léegi mu am ñaari semaine ñetti semaine donc loolu doy waar la Sénégal ñuy ñaan xëy na yàlla may ko mu xëcc ndax lu ñu wax ma na nekk miracle ci comme ni wax ci tubaab mais daal gis na xel mën a ñaaw lool ndax ñetti semaine gën gisu la kenn déggu la kooku na nekk loolu doy waar ci réew mi donc lu ci mën a am rek bu nu moom fi mu nekk nii Mm. ñu gis ni euh, coow li gannaaw kon ba mu amee ñu bari dañoo jàpp ni dañoo xaw a laale ci kon euh, document euh, enquête gendarmerie ci coowal Ousmane Sonko Adji Sarr bi nga xamante ni dafa fuité ndax gëm nga ni loolu mën naa tax ba ñoom ñu mujjee nii tey. ñun ci da duñ ci dàq dara duñ ci écarté dara ci suñuy wax xalaat Sénégal lépp mën a nekk ndax enjeu bi dafa rëy enjeu bi fu mu toll nii dafa rëy Sénégal moo tax fi mu nekk nii dara loo ko mën a loo ko mën a dàq lu ñu nekk mën a nekk ci dossier bi ndax enjeu bi dafa nekk enjeu politique bu am solo lool lool ci Sénégal ak ci Mhm. léegi euh, en tout cas coow li mooy euh, dossier Pape Alé Niang bu fekkente ne loolu la ndax euh, gis nañu tamit boobu ak léegi ñi ñaa ngi ciy wax presse bi tamit ñu ngi ciy def seen kim kattan yéen droit de l'homme yi dëgg la naam dégg nañ ci waaye fu ngeen tollu tamit ci xeex bi. waaye ñu ngi koy xeexan ah, Pape Alé Diop bi nga jàppee le 6 novembre dimanche ba tey wax na ci ci ñetti communiqué wax na ko ci rajo ak télévision ñu ne daal nekk loo xam ne dafa nu jaaxal en 2022 ñu jàpp ñu jàpp euh, journaliste ci loo xam ne dañ ni euh, diffusion de fausse nouvelle la te dañ ni li su mu génne mooy enquête interne bi amoon ci gendarmerie te loolu dafa am Sénégal depuis at yu bare bari léegi lu am police wala gendarmerie ci ay enquete ëllëg si nga gis ko ci marché bi gis ko ci journaux yi donc ñoo loolu lu jaaxal donc pour ñu naa loolu bu mu moyen la woon wala boog dafa nekkoon règlement de compte mm-hmm. entre état bi xëy na ak Pape Alé mais daal nekkul laa loo xam ni lu mën a yenu maanaa ñu niw loolu moo tax ñu téye woon ko loolu mm-hmm. loolu moom gëmuñu ko benn yoon ak coowal euh, Pape Alé Niang bi ak yeneen sax yi nga xamante ne daanaka laal na euh, taskatu xibaar ndax duggulat ñu daal di leen teg euh, loxo ci Sénégal ndax mën nañoo jàpp ni li ñuy wax liberté de presse maanaam presse bi moom boppam am na dëgg ci mim réew noo ci loo ci jàngat yow en tant que droit de l'homme non man li ma ci xam rek moom mooy quoi qu'on dise nag am na nu liberté de presse. boo hmm. xoolee journaux yi ëpp na ñaar ñaar fukk. télévision yi ëpp na fukk donc rajo yi ëpp na ñaar ñaar fukk donc pour man naam am na ñoo xam ne danay am combat particulier mën na de mën na déranger état bi mën na déranger nguur gi ndax Sénégal lan bu ñu fàtte ni pays africain la dañu xaw a am ragal lu bare bare bari amaguñu culture démocratique. Hmm. cent pour cent loolu moom na ko na ko remarqué malheureusement. Hmm. loolu moom mooy sunu ah. loolu moo tax daal xam naa ne du mën a ñàkk ñu xam daal Sénégal encore pays africain day jàng encore démocratie ndax suñu jikko yi àndagul ak accepté lu bëree bëree bëri ci suñu démocratie. mais euh, méngewul quand même mag démocratie bu fekkee. dañuy teg àndul ak démocratie tax démocratie mooy liberté. d'expression liberté d'opinion liberté de la presse loolu mooy jiitu ma mujj malheureusement dama ne Afrique la nekk Sénégal la nekk dañuy jàng démocratie mais des egg des lu bëree bëree bëri looloo tegee sa bët xam ne loolu dëgg la li ma lay wax. Euh, keroog ba ñuy euh, màggal bëccëg bi nga xamante ne dañ koo jagleel ak ak yeleefu ñi nga xamante ne kon ñooy tout tànk yi loolu amoon ci ABC US euh, kii ñu dénk wàllub direction des droits humains. daal dinay xamle ni ci Sénégal moom dañoo yem euh, nemmeeku lim bu takku maanaam dafa yokk euh, muy tout tànk yi nga xamante ne euh, caabi dale na féete ginnaaw loolu tax ba ñuy xëy na wax ci conditions yi nga xamante ne dañ leen fay denc ndaxam mën nga ñu wax tey conditions yi xale yooyu nekk ca prison di dundee. waaw loolu moom loolu fi nekk ne lu doy waar la parce que xam nga nit ñi dañ yokk Sénégal léegi ñu ngi nekk 17 millions ay Sénégal yi 17 millions yoon léegi donc dafay day day wuute ak li amoon yaa fukki at ak juróom la ñaar fukki at donc normalement yokk boobu day am aussi bien ci prison xale yi ci prison mag ñi que ci lépp rek day yokk bi nag ensuite ndóol gën a yokk te ndóol su gën a yokk day gën a bari ay délit am ay infraction ay tooñ ci xale yi surtout xale yi nekk ci mbedd mi xale yi taxawaalu les enfants de la rue loolu loolu lépp du nu du du du nekk lu pour ñun lu lu nu bett mais li ci important mooy état bi dafa war am volonté politique affronter situation boobu gën a jàppale prison yi gën a jàppale détenu yi yokk euh, yokk yokk doole ji moderniser ko parce que fi mu nekk ne état bi dafa nekk ci kaso yoo xam ne dafa dafa màgget dafa dafa dépassé fort bee boobu ëpp na ay téeméeri at mu am donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu jàmp la taxaw mais malheureusement Sénégal dafa xaw a néewal euh, néewal solo surtout affaire kaso moo tax malheureusement dañuy gis ñu gis ko booba ak léegi. Hmm. Euh, léegi nag euh, loolu xew. wala boog statistique yu ñu fësal ci jamono yi nga xamante ne Sénégal euh, daal dinañuy kon jëmmal li ñu duppee bracelet électronique nga xamante ne kii di joriñ ju ñu dénk wàllub yoon daan na ko ci fësal loolu est-ce que mën nañoo jàpp ni mën na nekk pexe tamit ci wàññi askan wi nekk ci prison yi. waaw waaw loolu mën na nekk lu baax su fekkee da koy accompagner. da ko booleeg détention préventive bi ñu koy limité surtout en matière de crime ndax crime dafa gaaw léegi Sénégal lu wax ñu ne crime viol crime la viol de bataille crime la jaay drogue crime ak ak rey nit muy ko ñeent juróom façon yoo xam ne dañ koy criminaliser euh, délit boobu donc su amee a yokk magistrat yi magistrat yi dafa néew Ndakaaru lu ci rëy rëy rëy dañu am dix cabinet am fukki cabinet am na cabinet yoo xam ne am nañu téeméeri am nañu juróomi téeméeri dossier cinq cent dossiers xam nga loolu dafa nekk lu doy waar donc dañu yokk dañu war a yokk limu euh, magistrat yi yokk limu greffier yi kay accompagner te loolu moo manqué Sénégal am volonté politique renforcer justice bi renforcer surtout magistrat ñu ëpp doole seen liggéey am ci euh, situation bu gën a nekk bu gën a équilibré moo tax moo tax malheureusement détention yi gën a yàgg gën a metti même bracelet su amee yokku nu magistrat yi tamit day gën a métti il faut aussi ñuy defaru justice ba ba du mën a téye ku la neex rek téye ko matière criminelle téye amul amul app mooy illimité donc ça dépend de instruction bi donc loolu lépp dafa dafa jot ñu def ay réformes fortes pour que état bi mën a mën a mën a woyofal euh, jàpp bi. jàpp mhm. jàpp ndëgënd parce que kenn woote ko kenn kenn kenn kéewu leen kenn atteegu leen donc foofu da nga ko war a limiter dans le temps. Mhm. mais est-ce que bracelet yooyu euh, mën na soxal tamit mineurs yi nga xamante ne sànq ñoom lañ doon wax. waaw xanaa dina doy waar nag il faut nañu laaj spécialiste yi de l'enfance ak ci bi naka la mën a adapté wu ci xaleel. bu man xaleel daal pour man daal su ko mënee woyofal téye bi du yàgg mooy gën nekk lu gën a yenu maanaa ci nit manager rapport yi ak xale yi téye leen téye téye yar plus que téye leen kaso pour di leen réinsérer pour man daal bracelet bi mën na ñàkk su fekkee daal dañ koy jàpp jàpp boo xam ni du yàgg ay weer lay doon mais ajul bracelet mu gaaw dem génn dem jàngi métier wala jàngi école. Mhm. ma fàttali kon yow yaay njiital Ligue sénégalaise des droits humains sëñ bi Alassane Seck euh, Rewmi FM mu ngi lay gërëm bu baax. merci encore et à bientôt.